asalaamaaleykum euh, mbokki internet yu euh, Sénégal TV euh, dalaat leen jàmm ci seen émission amul tabu émission amul tabu nag émission la boo xamante ne nii dafa garaawa garaawa garaawa garaawa garaawa garaawa garaawa garaaw ba suñu invité bi muy commencé di ree ndax ni émission bi garaaw moom Italie la nekkoon wala boog nekk na Allemagne nekk na France di seetaan émission amul tabu ñu naan dafa garaaw a garaaw a garaaw ba yàlla natu ko tey mu ñëw si émission amul tabu boobu war a ñàkk tabu li nga xamante ne nii moom la dund bitim réew ak boroom këram ba tax mu ñëw fii nii pour wax ko fii. émission amul tabu nag yàgg nay jokkook moom depuis bitim réew muy am loo xamante ne daf ko doon dund foofu muy metti lool lool lool lool lool lool mu bëggoon di participer si yenn émission yi. ba yàlla dogal tey mu ñëw Sénégal ni mu ñëwee lan moo ko indi loolu Tungune du teew ñuy nataal waaye nag balaa ñuy dugg ci émission bi dinaa ko xamal ne ko na xalaat bu baax a baax a baax a baax a baax parce que kat émission bii nii ba ay sëtam ak ay sëtaati sëtaati sëtam mun nañu ko seetaan donc comme ni ma leen koy waxee rek un homme averti en veut deux naxuñu kenn dugal ko suñu émission am ñàkk ñu xamal kenn dugal ko si suñu émission déedéet waaye nag nit ki dafay am droit à la parole dafay war a exprimer wu wax li nekk ci moom lu ko mooy rek alors mun na ko indil ay problème yu bëree bëree bëree bari moo tax léeg-léeg dañuy jàpp ne porte presse moom mooy gën sax porte plainte maanaam wax ko ba àddina bi yépp dégg ko mu génne si ñoom li nekk si ñoom maanaam ubbi spap bi mu daal def li nga xamantene ni moy bax bangeer moom mo len di gënal ki nga xamantene ni nak mom lañu inviter ci émission amul tabu mom mo n'ek ni. soxna ci ku la waxoon ne la yalla dina la natou ba nga toog ci émission amul tabu est-ce que ni ko gëm. dina la gëm du ko gëm. ndax émission yi dama ko yàgg siiw daf ma neex liñ ci waxtaane dafa am solo moo tax ma ne dina ma neex voilà parce que ñun dañuy waxtaane ay ay ñamax ñamaxe yooyu de daan nga dégg ñamax ñamax yeex yooyu waaw yépp daan naa ko dégg da nga koy siiw bu baax ba jóge ba foo jóge nii Italie ak Allemagne Italie laa jóge nii mais def naa Allemagne def naa France def naa Belgique aussi donc émission amul tabu rek mom moo may loolu tàccu leen émission amul tabu way tey nak public bu mag lañuy ñuy dajal euh, lañu dalal pour ñu euh, témoigner li nga xamante ne ni moom mooy fee yi li xew lan mo la indi ci émission amul tabu. li ma indi ci émission moy dama gis ay nit di fi def seen ay émission di ci wax seen ay li len naqari wala li ñu jot dundu ma gis ni buñ ko defee euh fiñi mujje moy kané dina dinañ am liñ ci bëgg wala loolu moo tax ma ne ñëw ki ko fi na fi ñëw wax ci li nga xamanteni loolu la dund ma nit comme si que ñeneen ñi fi jotta jaar li liñ fi amé man tamit euh yalla dimbalé mako fi ci manam li nekk ci sama xol giif fi sama xel daal voilà donc euh, pour dalal xolam mom motax mu japp ne ñew porte presse mom xalaat la bala ma lay dalalat ci émission bi est ce que xalaat nga li nga nara def bala ñuy commencer parce que suma amon luma gënal do porte presse mais da ngay porte plainte da ngay dem waxtan ak sa famille ak ñi nga xamanteni ni ñom nga sexal problème bi nga waxtan ak ñoom disok ñom parce que li nga xamanteni ne da nga ko nara wax adna bi yépp ko ba sax la nga ci bëggoon do ko ci am waaye nag émission amul tabou mu ngi lay mayaat benen sens ndax da ngay désister wala da ngay wax di nekk sa xol. waaw dama wax li nek ci sama xol. wat leen lolu donc dafa ñew pour wax li nga xamantene ni mom mo nek ci xolam li nek sa xol ba tax nga ñew ci émission bi lan la. nek ci sama xol mooy dama dund lu metti lu mettee metti ah, samay parents ñu fi ñu ngi dund. Eh, yek nañ li may dund tax dara um ko leer ci mais mësuma gis ñu def benn réaction boo xamanteni ni nii saa su ma melu ma metti su ma leen ko waxee duñ duñ ci sax fi ma waxee ñoom su ma coupé sama téléphone boobu lañ koy fàtte depuis boobu ba tey maa ngi ci nekk nag ça fait 10 ans wala 11 ans de mariage mais toujours nii la Sénégal a commencé Italie France Allemagne Belgique

parce que boo nekkee bitim réew di dund yenn jafe-jafe yi ñi ko dund ñoom ils s'en fout xanaa xaalis bi daf doon ñëw à chaque fois wala ki nga sëyal sa mbokk la ndax da da doon graissé maanaam jaar sa waajur yi fi nga xamante ne ni yow jaaruloo fa daf leen doon jox xaalis wala. non non sans contraire samay parents ñoo may jox. say parents ñoo lay jox ba nga jóge fii dem bitim réew ñuy continuer di lay jox wala. waaw waaw ñuy continuer di ma jox parce que njëkk a def te sama jëkkër moom ma yebal pour ma ñëw Sénégal tey biir yebal bu ma yebal mooy que ne dafa liggéey ci wàcc ñëw ni ma dafa nuyoowul sax dafa dugg si tijjil boppam sonewul ba ma tijjee ko mais dafa yoroon caabe dugg nuyoowul ma laaj ko lu xew waxul dara ma indil ko ndox mu ne doy na jékki-jékki ne ma faaw nga dem Sénégal ma ne ko pour lan mu ne ma faaw nga dem Sénégal ma ma nangu ndekete dem bi moom préparé woon na ko lu jiitu mu koy wax. qui billet bi ba paré promotaire billet bi ba tali xaliss bi rek de mu Sénégal ci dara d'accord deux jours la ci troisième jour bi ci la indi billet bi le Sénégal donc mu que problème amna parce que ce euh, borom kër bu la fukki at ak benn mu dem un moment donné mu décider lu ñu mel yaa ngi wax li mu la def mais waxaguloo ba léegi lan nga ko def lan nga ko def. su ma ko xamoon wax ko loolu moo ma jaaxal benn instant damay toog ne mbëggeel dafay amatul wala lan la te pourtant ñun ñoo génn sept bi ñuy génn man mën naa ne boobu ay douze ans laay am douze ans laay am parce que man maa ngi juddu le 9 septembre 1987 waaw xamanteeg moom ay 2002 yooyu. kon xam nga loolu yàgg na voilà te tamit mariage bi ma ciy dugg mooy que ni li ma gisoon ci moom li ma wonoon ma ñeme ko loolu moo tax ma dugg ci te su ma xamoon su ma ci duggee lii daf ma ciy fekk dama ci du ma ci dugg voilà. donc su ma xamoon li ma ko def tamit dama koy wax. Euh, bu xamoon li nga xamante ne ni euh, moom euh, la ko jëkkër ji moom la def jëkkëram moom daf koy wax waaye ñàkk xam li nga xamante ne ni moom la def jëkkëram. moo tax xamul benn léegi li xew mu jàpp ne dafa war a ñëw ci pénc mi daal di koy waxtaane ñun lan lañ la mën a apporter di tax nga xalaat ñëw ñun est-ce que dañ laa mën a dimbalee dara lan lañ la mën a dimbalee pour yow maanaam ñun lan lañ la mën a defal lu dul weer la rek àddina bi yëpp xam ne am nga problème mënuñu si leneen léegi est-ce que ñun nga am na leneen lu ñu si mënul yow ah est-ce que ah est-ce que yow xalaat nga ne ñun am na lu ñu si man est-ce que yow dem si say wéyjur ngeen toog waxtaan gënul balaa ñuy jël émission bi di koy wane ci àddina bi yëpp parce que ñun mënuñu ci dara amul benn solution boo xamante ne nii mun nañ la ko apporter lu dul li nga xamante ne nii dafa waroon a yem ci biir néegu sëy ñu jël ko tas ko ba àddina bi yëpp yëg ko ñun loolu rek lañu si man après du def lu dul gën a yàq mais amul lenn lu nga xamante ne nii daf koy defar est-ce que vous loo ne def émission bi mo gën def ko donc mu mel que ki nga xamantene ni euh, émission bi euh, def ko def ndax mer mais xalaatul won bala muy ñew pour def émission bi parce que ba fi mu tok ni xamul ndax wax ko mo gën mais ñun ñi di def émission bi gëm ñàkk ko def mom mo gën foofu def ko parce que tu sais pourquoi parce que mom tay jii ni amana ba bu la taaloon yow télévision comme télévision pour ñu seetaan la kenn du seetaan une minute te fayu la parce que am na lu ko naxari ci yow deug te ñun gisuñu ko mais xam nañ ne am na lu ko metti ci yow comme li li nga xamante ni yow am na lu la metti ci mom mais mom ñun gisuñu ko pour mom mu wax ñu lan moko ko ci yow mais yow aussi nee nga sa ay parents nanguñu pour mom seigne bi tass donc am fo xamantene ne ni peut être di nga fi blâmer sa bop nga ne man warna sétat sama bop est ce que dëggantaan si fukki at ben yi am ngeureum yo xamantene dang ne ko koy geureum wala xarab yo xamantene ne ko koy xarab li mu la defal ci lu bon ak ci lu bax lan mo ëpp. li ma defal ci lu bon ndax man lu may wax dama ñëmé ta da fay am ay sédé mën nay damay tek lo xamantene ne day leer nañ ay bët di ko gis xamné ne buñ ko defoon beneen jigéen kon sëy bi mën na bañ a egsi fii man samay parent bu ñu bu ñu toppoon ñoom si ay parent wala famille kon sëy bi mën na bañ a egsi fii mais dañ leen toppul dañ leen topp parce que yàlla daa bind te yemale ma nit yamul loolu la toppuñu leen. ay mbokk ngeen yow ak waaj. ay mbokk la. d'accord sëyu mbokk la ñu defar fa léegi mbokk bi yàqu na fi mu ne fi may wax ak yow. mbokk gi yàquwul c'est parce que. sama li may wax sama sama famille topp ñu seen famille parce que bu ñu leen toppoon ba mu sës rek kon famille amaana yàqu na tey waaw mais topp ñu leen ci dara ndax boobu ba tey lu ne jaar na fi lu ne xew na fi mais mosu ñoo dem interview ci loolu mosul am mosu ñoo jug benn yoon la sama yaay mos a jug dem fa te bu mu demee sama goro bu jigéen daf ko dàq daf ko génne ba doomam bu góor sama magu jëkkër ni ko kii bu meloon ni yow tey di ngeen jote gor bu ñëwee ci kër. déglu ko ba xam lu ko indi mais daf ko dàq génnal ci biti. voilà donc mu mel ni mbokk gi yàqugul waaye mu ngi ci tànku yàqu parce que koo nekkal fukki ak ak benn ngeen am ñaati bant. ñetti bant. ngeen am ñetti bant nga ne li mu la def ci lu bon moom moo ëpp ci lu baax te yow gis naa ne tubaarfakàlla macha allah ah yow moom souffrance feeñu sa kanam benn yoon lu nga souffrir lan la loo wax souffrance. ba mu tax nga bëgg tass sa say génne ci affaire bi lan la li ngay wax souffrance li nga dundul metti loolu lañu bëgg wax ñoo man lenn dama nekk nit ko xamanteni li liñ doomu ñaay kenn du ko ñaanal rek da koy ñaanal bu du fa manam notre famille sont tous. voilà. Ah, manam yow ci famille bi nga bokk daal macha allah. voilà dama nekk nit ko xamanteni tamit duma jël problème diko def ci sama biir xol mu may mu may sonal. man damay dund toujours. non garaaw voilà mooy muy way. voilà man loolu laay dund loolu laa mës di dund. Mhm. damay sa damay nit day daf may xam carrément xam li may dund mais moom ni ma mel toujours daf koy jaaxal ndax danga may fekk toujours maa ngi bégee ak nit ñi maa ngi xàppi duma ko def sama mbir xol du feeñ fenn ci man ba soo ma gisee boo ma xamul da ngay kii amul problème comme li nga wax rek man nii la ma yàlla bindee naturel. ok yaa ngi si émission.

dama koy wax. yow li nga def si lu baax man damay toog di xalaat lan laa war a def lu waral lii. yow li nga def si lu baax moo ëpp li nga def si lu bon. loolu xaw ma loolu moom rek moo ko mën a jugé. mais moom li mu la def si lu bon moo ëpp si li mu la def si lu baax. moom dëkkaloon na la. dëkkal lu amul fu mu la dugal wootuma. fukki at ak benn si mbedd mi nga doon finaan. seen kër laa dem sëyi ji. fukki at ak benn 2007. waaw laa fa dem 2006 laa fa dem sëyi ji. mu dugal la si mbaaru xari seen kër. benn néegu magam laa doon fanaan magam bu jigéen bu mu bokkal ndey baay ñu bokk di fa fanaan magam bu jigéen am ñaari doom man ak magam bu jigéen ñoo doog bokk di fa fanaan moom mu luwee néeg dem dëkk fa dëkkul sax seen biir kër mu dem luwee néeg nekk fa man man nekk ci néegu magam laa daan nekk. pendant pendant ñaata temps nga toog Sénégal laa nga dem bitim. deux ans. deux ans yoo xamante ne moom rek moo dëkk si néegam. moom moo dëkk si néegam sa borom sa kër moom kese mooy fanaan si néegam. yow ngay fanaan si gàddaay may fanaan ak benn néegu magam yenn saa bu nekkul lay si néegu yaayam mu ñëw ñu fanaan foofu bu yaayam parce que maamam mais moom lan moo tax mu dëkk si néeg moom kese yow nga dëkk si si si sa néeg mi ngi tabax benn tabax néeg benn néeg jarul diire ñaari at néeg bi ko commencé bàyyi ko noonu si kaw a kaw bëgg ko eggale mu ngi tabax benn nekk toujours mu naan maan doo mën ñëw fee fii léegi mu pare toogal xaar ma toog di xaar. moom mu dëkk foofu deux ans. waaw yow nga dëkk fii deux ans moom kese moo doon fanaan wala dafa am ñu mu doon fanaan. xaw ma foofu benn yoon laa fi mës nga yeneen ñu topp si yow kese nga. yow ak moom kese affaire bi naxari. lan moo naxaril diggante bi noonu lan moo tax diggante bi waroon na retax waroon na neex ak bokk geeg yooyu ñi ci dox te neexul lan nga jàpp ne moom moo parce que am na lu mu la reproché au moins am na loo xamante ne ni def nga ko da nga doon faroo fii Sénégal da nga doon faroo Italie dafa am si loo nekk loo xamante ne ni moom neexu ko lan la la reproché lenn da nga ko waroon toggal toggaloo ko da nga waroon toog toggaloo am nga loo def loo ne ni naxari na ko te wax ko benn waxante ngeen lan nga jàpp ci wax yi mu la mës a wax. lima ma ci lu mi ci mom mom mom day goru ko lo kat la. legi léegi bu bu lo buy tàng sante yu mu lay jam. jogal fi ya? ak tiagabe tiagabe musu la ko wax. non parce que fekk mo may taxawal. jogal fi c'est à dire. yow da mën la jëlal. la jël bu moy lan da ngay rupi khalisam di sacc khalisam di di ko jëfëndiko neneen lan la dang koy serigne tou roy roy def la jël ban xeetu la jël. tou man suma melu may tou dama ko yemale ci sama bopp damay sëriñtu pour mel mel no xam te ni gis bëgg ma beneen góor bu la gisee bëgg la kuma gis bëgg ma góor amul goor amul jigen ah d'accord bay rek wa ah d'accord accord mais est ce que bëggeel bobu bo demee ba sa jëkkeur bëgg la est ce que doyul ngay wut keneen bëgg la mais ki nga nekkal bu la jappé ben xat wala ben genre imbécile comprendre to jaral ma dem ci serigne ma looy wax looy wax loy tudde baat bobu nan jóge fi defal ak lan ak yan baat xaw ma yaruwul daal nit ku ñàkk teggin la ñaari baat yoo leen wax booy wax di indi jàmm sax saaga lañ njëkk a def. loolu Sénégal la tàmbalee wala. depuis Sénégal sam papa lay muyu sa papa def noonu ndeyam sa papa yi lay nuyu sa bokk loolu lay wax. mais attends est-ce que reconnaître nga dara ci say erreur nga toog bés nga ne man lii def naa ko. toujours damay toog di koy sama bopp ok donc le public bi droit droit réplique euh, li ngeen ci euh, la euh, est-ce que vous ko xamantene ni dafa am question bu muy poser par rapport à li nga ni mom la ngi ku nekk sa ak sa man lu est-ce que vous nga ko wala dañ leen ko dañ la dañ la comme ñu ne xaaral ñu may la ko est-ce que bëgg bi am na avant tout. waaw bëgg bi am na ndax ñun ñoo xoolante ba bëggante ñun ñaar kenn forcé wuñu ko ñoo xoolante ba bëggante léegi moo yónnee ay parents am ñu may la. moom moo yónnee ci ay parents am ñu may la ko waaye ba léegi yow yaa ngi ci émission amul tabu mais dafa mel ni que am nga loo xamante ne ni euh, danga koy tabu parce que. soit comme lu ngeen di wax Sénégal ndax da ngeen jàpp ne am na loo xamante ne nii moom la def seen diggante bi diggante bi xajam loo xamante ne yàq la est-ce nga toog nga xalaat ne dafa am yàq-yàq yoo xamante ne dañ koy def sa diggante yow ak moom pour diggante bi naxari est loolu mës na la traverser l'esprit. non lu jóg nga xalaat ne nit moo ko def wala bokkuma ci. ne nga aussi euh, bu doon ne émission bi dafa nekk émission boo xamante ne dañuy woote tey jii nii ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo dëkk ak yow ñoom dinañu seede sa diggante yow ak waajooju noonu loo xamante ne ni ñëpp dinañ xam ne yow sëyal nga ko ba géej ah n'est-ce pas waaw léegi loolu foo sukkandiku nit ñi nga doon sëyal wala moom nga doon sëyal est-ce que si biir néeg bi da nga koy def loo xamante ne ni naka sa noonu la boo génnee si biti nga sukkal ko bu la gisee nga sukkal keneen mu jaaxal ko parce que yow mosoo ko sukkal mosuloo ko defal lu ko neex mais mbedd mi ngay sëyal ay wujju peccor ko ak sey goroog say dëkkandoo ñëpp xam ne yaa ngi sëy mais ci biir neeg bi yaa ngi def yo xamantene ni naka suñu dul noonu la est ce que loolu dalul la ma pour bañ may maye dama pour kon bu may pour ñeneen ñi ci bokk dañ mais voilà ñi si si ñi si euh, ñeneen ñi euh, dañu see wàll yaan waaye taxuñu ko yëpp léeg-léeg jigéen ñi dañ koy wax ah comme li nga wax nii mais euh, am na benn waay boo xamante ne ni ku ma jege la ku ma xam la jabaram fi mu nekk nii dem na seen kër te def nañu ñaar fukki at ak ñett moom ak soxna si mu defar soxna si teraanga yu nekk compte bancaire 20 millions moom la tijji bi muy dem bitim réew koro ba muy dem commissaire Anna dafa ne ko ndax li ngay def xalaat nga ko bu mu jëlee ne compte banque bi daf koy def si turu jabaram commissaire Anna mu nekkoon jamono jooju aéroport pour autorité ne ko est-ce que li ngay def ni xalaat nga ko parce que attention sa jabar nga jël compte bancaire la danga koy def si turam je suis témoin li ma lay wax nii ñaar fukki at ak ñett mu jël yaay jabaram jox ko 2 millions pour mu liggéey si ça ne date pas d'un mois mercredi lay mat un mois bi femme bi demee këram waaj nee na du ko jëli ji parce que demoon na bitim réew dematul bitim réew ñu commencé di koy xarab femme ba ba muy dem dana ko mosuloo ma defal dara amululoo ma benn njëriñ mosuloo ma amal benn njariñ dangaa dof léegi famille yi jël femme ba jël nañ ko yóbbu nañ ko njàpp ñëpp di wax ne waa ji moo tooñ parce que femme bi dafa doon sukkal waa mbedd mi dafa doon wane si kanamu nit ñi ne mu ngi sëy mais man xam naa ne mosul sëyal jëkkëram parce que jëkkëram nangul na ko doom boo xamante ne nii jëkkër ba juru ko te kenn mosu ko yëg te loolu mosu ko wax defal na ko teraanga bu nekk waaye femme bi bu muy génne dafa wax wax ñu ñaaw sama jëkkër moom wax caga dem waxe ko ba ñëpp jot si waaye waxul la ko jëkkëram nëbal doom ba nga xamante ne moom xam na jëkkëram xam ne jurul doom bi waaye nag mësul wax loolu noonu est-ce que bokkuloo si jigéen yooyu noonu. daree àdduna jaral ko masuma wax la masuma masuma xas la wax ma ca masul am. waaw léegi métital yi bitim réew. Talla dafa la doon dóor dafa doon dóor xale yi dafa la doon yeew. daf la doon sëyee ak ñeneen daf la doon sëyee neneen noo xamante ne bëgguloo ñu sëyee la ko xam nga te daf la doon yeew daf la doon takk est-ce que da ngaa dund loolu. police ñëw na fa ñetti yoon yow da doon liggéey bi nga nekkee foofu. mosul nangu liggéey. moom moo doon liggéey ñëw di lay jox. kooku yor na la. dama doon létt déglu rek. Mm-hmm. dama doon létt dama doon kooku ku baax la yow ku baax nga may instant yi. waaw ba tey bonul moom moo fa andi moom moo ma yóbbu foofu bi ma fa yóbbu wax ma dara ba benn bés laa ko ma laa ko laaj ba xam mën naa liggéey mu ne ma defal sa bopp ne liggéey andiwu la fi bi ma waxee loolu ci laa génnee sama xel ci liggéey andiwu ma def li ma wax comme sëy la ma wax ni moo ma fa andi. ma kon na toog di sëy su kenn ñëwee si moom lay ñëw ni ko dafa bëgg a leetu xaw ma fa kenn du nangu ma génn nangu ma am foofu xarit nangu ma xam fa kenn moom mooy dem duggi ji mel su xorom manqué moom moo koy dem jënd ci ma toog ma ne bëgguma xam fenn su ma xëyee def li ma war sama biir kër def li ma war lépp su toog jotee ma toog xaar ko mu ñëw li ma war ma ne ma nekk si li ma war warloog moom toujours dama siy nekk su ko su ko yëgee ak su ko yëgul toujours dama siy nekk si parce que man la war voilà du ma tëri liggéey ba toog su kenn bëggee def si moom la jaar si parce que moom moo xam ne ñi moom mooy génn mooy ñëw dina am fi ñëw tey su ñëwee nga tijjil góor nangam la tudd tey léttu génne photo lu su su ma ko lettee su ñëwee luñ ma jox lu mu mën ci tool su ñëwee ma teg ko si loxo mu jël du ma si jox un centime man tamit damay bàyyi noonu mosuma def sama xol ne lii sama xel ne lii man maa koy liggéey wala dara. dama jàpp ne rek sama jëkkër ko moom fi andi li ma def loolu laay wax euh, li ma wax loolu laay def ma continuer nekkee ak moom noonu nekkee ak moom noonu bu fii lu ñu fay si ba ma amee doom lu ñu fay si xale lu mu doon su ma ko jëlee parce que foofu dañ koy def si tur yaay ji su ma ko demee jël su ma ñu jox. d' yére bi nga sol ni kan moo ko jënd. yére bi moom yàlla def na ne sama xaalis papa la jar. sa xaalis papa la jar. léegi chaîne bi nga takk yàlla def na ne jaaro bi nga takk nii fu mu. yàlla def nañ sama a koy def. dàll yi. yàlla def nañ sama mag bu jigéen moom saag bi. yàlla def na ne maa ko jënd. kon waa ji 11 ans yi defalu la dara. am na lu ma defal. lan la jëndal na la kër utal na la terrain. déedéet. utal na la lal. <laughs> jëndal na ma lal boo xamante ne 1 million 50 mille lay jar. 1 million 50 mille. waaw waaw. ma tëdd si un mois. yaayam démonté ko jox ko magam bu jigéen mu monté ko ci néegam. coow loolu di ba tey ci démb rek la ko ay nit mu wax. ah man xaw ma ne affaire lal bi am na tamit baax na àq rek. am na nag dama dama dama dama rek. léegi man utal na la armoire. chambre à coucher la nekkoon lal la armoire ak coiffeuse mère bi moo ko demoon te sampal ko doomam bu jigéen ba tey ji ma toog leen xool. léegi su xëyee tëdd si kaw man ma mat laa tëdd si suuf avant may tëdd may jël am mat la ay sër laa doon lal tëdd si suuf. mais est ce que mère bi nga amal problème réellement est ce que li nekk si jamono est ce que soxna si euh, sa jëkkër nga amal problème réellement est ce que lu nekk tey si jamono maanaam nit ñi dañuy bëggante comme ñooñu ma lay wax noonu ay waajuram ñoom ñoo ko oo ne ko ñëwal mais soxna si jëlul woon décision dem si souvent nit ñi dañuy bëggante mais léegi famille ñom ñoy ñodul bëgg bu ñu demee bëgg ñom dañuy bëgg affaire bi tass yow est ce que da ngay dund situation bi est ce que du sa jëkkeur bëgg na la fa légui bu bu mu bëggee ba tay tamit wu ko parce que li muy def nekkul ci fu bëgg ah yow da nga bëggoon mu lay dawal comme xaj di la ramal di la di la kii xam nga yàlla tere waaw loolu lan nga bëgg lo gis ci mom lo xamantene ni japp nga ne doxalewul comme ko xamantene ku bëgg la parce que souvent yeen tamit da ngeen di bëgg da ngeen di ay caprice bëgg ko gérer sen caprice est ce que yow da nga capricieuse de trop waaw loolu moom yàlla def ko si moom. waaw léegi lan moo waral moom ki parce que ki la jëndal euh, euh, ensemble un million cinquante mille kooku bañalu la dara ah am nga armoire yére jënd mos na la jëndal ay yére. dem naa seet ji mooy dem seet ji ñetti valise laa yóbbu seen kër dama seet ji tombé Kazu Rajab kii moo doon ñëw tabaski tabaski mosul jot xotti ma sama kër papa mosul am tabaski boobu xottiwu dama ko laaj. mu ne ma yoruma xaalis ma bàyyi. 11 ans yi defarul la dara jëndalu la yëre buy jar 50 mille jëndalu la yëre bu jar. mosul am mosul la jëndal yëre bu jar 50 mille. yàlla mi ñu tiim xam na ni mosul am. 11 ans yëpp. yàlla mi ñu xam na ni mosul am. man jàmbaar laa de daan naa joxe cent mille par mois wallaay wallaay te dañ dama eh, dañ dama defaloo ma dara. sans contraire man man kenn du defal lu baax. mais dégg naa ne ñaari saak ngeen yor ah saak bu bon bi ak saak bu baax bi mais da ngeen di jël si bu bon bi ngeen di dugal affaire yu baax yi muy wadd mais beneen saak bu bu baax bi nag fa ngeen di dugal affaire yu bon yi. bu ngeen kiiwee rek génne ko waxee ne defaluñ ma dara defaluñ ma dara defaluñ ma dara. su amoon moo ko mosul am. parce que 11 ans yow naxaat feeñu sa kanama ah. très sincèrement stress feeñu sa kanam. man damaa jàpp non damaa jàpp ne ah. bitim réew xam nga liggéey ji ñëw problème yi ñuy jànkonteel foofu nga tëju si néeg bi xamuloo kenn coono yooyu nga xamantene ne moom ngeen di jàpp est ce que du stress boobu moo leen jàpp est ce que boo demee bi nga ñëwee Sénégal léegi ça fait combien de temps. mat na matagul deux semaines wala est la yem. ah deux semaines trois semaines. ci yooyu lay toll. si yooyu lay toll est ce que nekkul ne boo demee ba def fi deux mois trois mois la daloon Famba Famba femme ba Tambacounda la mere kër oto femme bi mu lay wax ni ne dem na kër yaayam moom kër kër ak kër yaayam ça ne fait pas 500 mètres donc pour mu dem facilement kër yaayam. dafay yomb ah gedd dem donc femme bi moom Tamba la mere dugg si oto bi ne dafay ñibbise Dakar pour tas mais bi oto bi dawee ba ay une heure yooyu mu mu yeewu ne waaw fekk mu ngi nelaw si oto bi fàtte na sax li ko taxoon mu mu xalaat ne <laughs> moom ndekete dafa meroon rek mu jël bagage am daal di delluwaat këram est-ce que du boo toogaatee Sénégal un mois deux mois trois mois quatre mois sa xel du nekkaat ci sa waaj. yàgg naa see bëgg kenn yàq. ndimbal ku ma accompagner pour ma génn si sëy yàgg naa see bëgg a génn parce que dama sonn est-ce que réellement xalaat nga ne fi mu nekk ni jot na pour nga génne si yàpp sa kër est-ce que dafa am beneen waay bu la jox juróom si wet yi ne la tasal ma takk la maa si bu ban waay moo ñemee taxaw sama kanam di ma wax loolu dama yor njaboot est-ce que amuloo koo waxaale ba pare foo teg sa tànk ba pare door a mën a xalaat ne yow da nga war a génn si buum parce que jëkkër yomb ki lay fooye moom mun na yomb. su ma génnee si kii man suur naa góor ndax moom. am na ñu ko waxoon de. wax de maa suur nga am. am naa 28 ans maintenant. am na ñu amoon 45 ans ñii 60 ans nag waxoon ne suur naa góor waaye ñu ngi wër góor si mbedd bi ñu leen di mën a mën a ñekk mën a ñama ñama ñamaxee si mbedd bi. non il faut nga seet affaire parce que mer nag dafay ama ah. en général da ngeen di mer tas seen sëy man gis naa 40 mille fii yu nga xamante ne ni actuellement nii ñooy gelu gaay te attention. bo génné si société sécuriser ñu la gelu gaay yi ngay doon gaay yi dañ lay jël di la fowé xolal di la won nak lo xamantene ni naka sa nadul noonu la nga na ah man yeex naa génn si sëy bi waaye sa faru sa jëkkeur ju bon ji mo gën fuuf sa faru baax bi donc sey bi balaa nga ci génné na ko xalaat xolaat ko segal parce que sey morom jaar nañu fofu tay fi mu nek ni juróomi deureum sax amna ko gis léegi ci mbedd bi kooku nonu la doon nuyu tey juróomi dërëm bu ko gisoon tey gii nii ñu jox ko juróomi dërëm pour mu nekkaat si buum day nekkaat si buum ba mu jot tolloo gis nga ko jigéen la rafet na jekk na loolu la waxoon waaye ba tey gii nii ku am téeméeri dërëm yéeg ko wàcc ko donc il faut que nga xalaataat bu baax lu nga nar def. baax ko xalaat léegi waxal ma lenn lu baax looy fàttaliku si sa waay mu defal la ko sincèrement nag ñu génn stress bi. mer beeg kii beeg yooyu mos na la jëndal palaatu ginaar benn dàll benn kii beeg. masul am bi may yebal may ñëw Sénégal sax ay dàllu caabi bi 3 euros la ma bëggoon a jëndal man ko bëgguma yàlla dara ci àddina masul am. 11 ans fukki. 11 ans masul am xanaa ngay tëdd ci lal bi mu lay na wàccal sama lal ak génnal sama kër loolu da la nekkee. waaye waaye xaar nga fa ñetti doom de. xaar naa fa ñetti doom damay ëmb ay doomam sax mu may génnee. ak wàccal sama lal fii maa ko moom puusal fii bul yàq li xool ni nga toogee ci sées bi. waji day mandi wul tukul yalla lol mom yalla dimbali nako ci tukul nan. tuxul nan te te te ku gem bopam la ku day liggey rek ci si mom Oke ok lol neex ci mom moom waaw jàmbaar moom waaw jàmbaar la moom tak takk ak ak lan tuxul nan ak leneen lu la neex ci mom loy fatalako benn na ñëw jëndal benn chaîne benn affaire benn. musicien la woon fii Sénégal yor place yëmbal la nekkoon yor fa or bu xonk coy place am mosuma takk jaaru baaraam lu ma fa takk dama kaa jënd tey sama papa laa koy jëlee lépp lépp seen kër damaa jaay lépp lépp seen kër ndax njëlu kër gi. yow yaa yaa yaa gën a dominer financièrement wala moom moo gën a yéen seen famille moo gën a riche seen famille wala. non non gënuñu leen riche. tamit leen juste ok mais waa ji moom euh, est-ce que kii bi baax na affaire bi baax na ah parce que nag yéen a. am na ñetti doom. ak ah, ak kan. moom ak yow. waaw waaw mais taxul affaire bu baax <laughs> am ñetti doom taxul affaire baax de. en tout cas daal ñoo ngi doon jàmm yàlla. jaamu yàlla na est-ce que doon na la yóbbu système si yàlla. ñoo ngi doon jaamu yàlla daal. non ndax man na dëggantaan ndax nga ndax ngalaab doon na ko téye bu baax. aywa yow bàyyi ma jooju. ah, ah, ah non parce que da ngaa woor. ah dafa damaa woor rek daal di kii mais mais waxal quoi parce que am na loo xamante ne nii sincèrement dégg naa bu leen tax a génn si say quoi. soit da ngeen di am keneen fu ngeen ko. aadama problème boobu sax moom amul sax problème boobu. problème boobu moom boolewul. non non. mais problème bi boo boole ba nga bëgg a génne si affaire bi moom moo bëgg a génne si affaire wala yow yaa bëgg a génne. li ma dund moo metti man moo tax ma doyal sëkk te ba ma yàggee damaa yàgg jël décision daal toujours sama parents duñ ma sax li jël moo tax nag décision bi ma jël ko jàkkaarloo ak sama papa ak sama yaay ne da ngeen di soon su ngeen si waxee dinaa tax su ngeen si waxul dinaa ut ay nit ñu jàpp si sëy bi tas moo tax ma dem si imam ba dem ci certificat ba wax leen ko. léegi naxee ba génne la bitim réew. dafa xëy ni ma dangay dem Sénégal boo demee Sénégal nga toog foofu xale yi xaw a dallu tuuti ay 6 mois yooyu 5 6 mois yooyu après nga ñëwaat fekk boobu teel sama séjour ba mu jeex nangoo ko renouvelé moom sama garanti Sénégal sax moo koy yor nangoo ko bàyyi ak man su ma su ma amee lu may fu may dem wala lu war a def it daf may compagnie ba foofu jox ma ko ma lijjanti li may lijjanti ba pare dellu même su ma compagnie wu su ma dama koy jël dem. suma ma ñëwee delloowaat ko ko duma ma ko sax té duma ma ko sax té légui mu mu fexé nga mu yobbu la ba aéroport dig la argent de poche. daf ma ka dig ci kër gi daf ma ka dig ci kër gi mu né ma amna xaaliss mo daan jël ci yow taala tool soy dem dina la ko jox jël na la appartement so démé 6 mois dina la jënt ya xalé nga ñëwaat fekk tal ngeen ba paré fo kër ga sax appartement bi sax doo fa def ay 1 mois yoyu parce que defar na këram bu pare instant këram mi ngi tege mi ngi tëje ndekete moom moom décision dafa jëloon ma ma ñëw dafa jëloon décision ma ñëw toog ci si këram ak xale yi léegi ma ñëwee yaa maa ngi ko dégg ma naan kenn fi jël appartement ndax weer ak morom dafa jege mais liiw ma lijjantiw ma sax loolu ma wax day dugg fii génnee fii amul lu ñu may wax pour mu metti ma garaawul ma. moom dafa nekk néegu magam. bi nga ñëwaatee bi nga jëlaalee bitim réew tamit néegu magam nga. waaw si néeg bii néegu magam boobu magamu jigéen boobu dafa amaat yeneen doom moom néeg ba dafa xat xajul magam bu góor la ak jabaram dañoo génn nekk fa. te moo am na këru boppam pare na. mu am na këru boppam mi ngi tege benn apprenti bi bu muy liggéey bi ci kooku moo nekk si kër. yow xam nga jàmbaar dëggantaan nga may wax góor yàlla dëggantaan nga may wax il faut wax say sikk sikk nag. góor yàlla la. dëgg man la jàmbaar say sikk non da ngay il faut wax say sikk sikk yow nga jàpp si yàlla rek. sama sikk man duma ko mënuma ko wax moom moo mën a toog wax ne lii lii lay dund ak moom moo ko metti moo tax moom moo tax mu may def li may def. moom mës na wàcc ñëw fekk la kër ga. masul am fu may dem. tere na la daan nga julli di jàpp moom sa di jàpp ak julli bëggoon na nga koy def. doomu jullit laa dañ koy def heure su jotee ñun ñëpp ñooy ànd. mosu dem xuloo ndax da ngaa war a jullee. déedéet loolu moom. mosuloo bitim réew mosuloo dem ànd ak keneen dem feet boo xamante ne moom d'accord ci. bu mu juddoo ba tey xaw ma fu boîte feeti masuma see teg sama tànk benn yoon laa si mës a dem bu may ànd ak sama benn xarit te boobu xaaju ma bay sëyi xaaju te jamono ñoo ko bokk dem laa koy fàtte sama xarit day ree bay bërëm yow boo kaa daan xas lan nga koy xase bu ngeen daan xuloo bu ngeen daan defal dangaa bon moom mu ne la sa xol bu bon bii laa koy wax yow moom it mu ne mu wax la lan mu ne ma su ma la fekkee foofu balaa moo ñëw ma daaw tëj bunt bi nga nekk si néeg jàpp sama ñaam bi. d' accord mais problème bi gisoon ne mën nañ ko réglé. kenn mënu ko réglé ndax xam nga ko doyal. yow da nga jàpp si da nga gis keneen dañ laaw am na ñu ñu diggoon ay sëy de waaye ba ñu bàyyi seen sëy ba dem dugg ci sëy bi. man maa suur góor ndax jëmm ji déggoo ma de. góor moom nekkul a suur moom. góor ak yi mu ànd daal góor de ku ne baax na la a tax. ñu ngi koy jigéen ma ne góor ku ne sa baay bi la jur a tax. may hmm. wax xale jigéen yi amagul jëkkër ñi ngeen di waxanteel wala ñi ngeen di liiwanteel ay naxekat lañ ay warkat lañ gëmuñu dara seen xol yi baaxul dañoo iñaan lii laa leen di wax ngeen def très attention ak góor yi. donc euh, man dañu naan présentation ak euh, baaxuñu de. Euh, gars yi d' accord ñu ak yow ah ah, ah fi dara de ah. de c' est ça gars yi d' accord ñu ah. oui. donc waaw. Ah? ah man de dama leen a boole. tam ma nekk si benn. est ce que. waaw ah? su ma la déggee si wax. daa mel ni sikk bi si yow la la commencé parce que ni nga wax ne da nga jàmbaar la góor yàlla la am na jom dañ na mën a liggéey nangu sànq ba tey nangu wax sa sikk te nangu loolu moom daanaka mën naa ne yow problème bi si yow la commencé te boo na góor ñëpp a yem man d'accord ma si. Euh, merci beaucoup maa ngi leen di nuyu ah, ku nekk ci turam ak euh, man en euh, du ma du du peut-être euh, abonder mon ci ci ci sensu ñeneen ñi ñuy abonder quoi je vais d'abord tout simplement commencer par euh, dire qu'en fait c'est une femme bi nga xamante mais à l'entendre parler on voit que c'est quelqu'un c'est c'est quelqu'une une dame qui a qui a besoin d'être écoutée c'est-à-dire nit la boo peut-être que dafa am naqar boo xamante que da ko yàgg denc ci xolam parce que ku dem ci ay waajuram wax ak ñom souffrance bi nga xamante mu koy dund aussi ci biir famille bi euh réagir wuñu ou bien jappalé wuñu ko aussi wala nanguñu ko déglu man je me dis que lool ça fait mal au cœur et à un moment donné bo togué nga emmagasiner lool yeb sa biir xol aussi da ngay da ngay soxla génne donc c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a besoin d'être écouté et bo gisé lutax mu ñëw fi peut-être pour man peut-être que dafa dafa dafa wër environnement ba sonn kenn nangu ko déglu mu mu door jël décision ñëw fi bon maintenant euh, la question qu'on doit se poser est-ce maintenant ñëw tok devant la presse wax wax ji c'est-à-dire xaawi sa sutura bop non seulement et puis nga wax aussi si sa jëkkër est-ce que yaangi ngi xel bu baax ci conséquences yi par rapport ak sa njaboot bu ñu mag màgg ban la leen morom yi parce aujourd'hui man yaakaar naa ils que apprécié, ñaanul am aussi Yo xamantene que ci am appréciation benen appréciation ils leneen non leneen leen di de papa Sen papa na na ou bien aussi defon na ont papa donc est-ce que yaangi xel baax si conséquences et fuma d'accord d'accordu léegi yow aussi moi euh, fi nga fi nga toog di di clash góor ñi je je me dis que c'est-à-dire bokku ñoo ah. il y a des femmes yo xamante que say morom yo xamante tay buñu bu ci ñom aussi euh, seeti leen le contraire de li ngay wax ni lañuy wax ci seen i donc c'est c'est pas une occasion pour toi aussi de véhiculer ce message là euh, aux jeunes filles qui sont là xam nga di len ne non góor ñi buñ len ki saa en fait da fay melni par exemple tey jii yow euh, jaamu yalla bi sax da nga len koy xagn quoi parce que sey aussi si jaamu yalla la bok hein sen avenir aussi mu ngi mu ngi dépendre si lolu donc euh, des fois il faut pas xam nga que ce problème que c'est, nga nar ko exposer ba nar créer ay conséquences dans la société voilà lolu la amone lu wax quoi mais ma bëggoon quand même nga tonte si question yi ma la laaj noonu. ci kii laay wax euh, ci sëñ Saare mu ne góor yàlla day liggéey loolu dëgg la mën na nekk góor yàlla di liggéey ah mais tamit lu war ci këram du ko def mën na génn si biti liggéey ñu muy sëkkal liggéey di ko ak ñoom di reetaan ak ñoom bu ñëwee ci këram mel ni du moom mel ni gaynde loolu jabaram sax bu yàggee du ko gis jàmbaaram ak liggéeyam bu yàggee du ko gis ndax bonheur bu mu war a am ci kër gi du ko am kontaanu mu ngi koy merloo loolu moom sax dafa baax naan jàmbaar la mi ngi liggéey mais moom bu yàggee dootu ko gis moom dafa baax di wax loolu question bi ma koy laaj mooy ndax moom bi mu koy takk muy nekk xale ndax moom feesoon na dell nekkoon na xale bu ndaw mu jël ko ndax parents yi dañuy topp ba ci loolu ba moom mu ñu xuloo euh, parents yi ndax mère yi dañoo fonk loolu ndax moom bi muy nekk xale jëkkëram di ko takk ndax matoon na xale feesoon na dell daal bi mu koy jël loolu laa ko doon laaj waaw su fekkee ne euh, jàpp nga question yi euh, mën nga dem tontu directement su fekkee jàppul nga question yi tamit moo tontu la euh, sëñ Saliou daf ne yow yaa sikk ah, moom loolu la wax stige mu ne da ngay encouragé jigéen parce que ce problème ça ne veut pas dire que moom la ñuy dund alors bintu mu ne ndax feesoon nga ko rek <laughs> waaw nit ku nekk rek xalaat rek moom xëy na loolu la gis wante moom yaayam de lu ma sikk sikk kon saa bu jëlee téléphone di wax sama jëkkër kër ko moom da jàmbaar la kër gi de moom dafa set taw tañ faa nekk ñu set jeeg lañ ci kër gi moom de moo fiy balewaat ngoon kër gi moo fiy fobeerewaat te moom dong moo fiy toog lu neex dafay wax ni ñeneen ñi ko di ko dégg di mer moom de moo fi fóotal sa papa moom moo fi moom moo fi fóotal ak beneen doomu magam moo mu ne ko moom de moo ko fiy toppatoo moo koy buy dem jàngi moo ko jox dafa yaatu affaire yooyu moom da koy wax yaay. waaw jubluwuma si dara nag. mais loo xamante ne nii yaayam da wax. Tijane mu ne euh, ndax da nga war a encourager nit ñi pour ñu mel comme yow quoi. soo gisee ma wax loolu tamit li may dund dama gis ñeneen dama gis yeneen jigéen yeneen. yo xamanteni ñoo bokk noonu nekk Europe dundul sax mën na lu gëna pire li may dund ta ay goor ñoo leen kay tek seen jëkkër ñi dund lu metti ñen ñi da leen di jaral di def yenn yu metti ñen ñi di ñibi ci di toog ñen ci di def yenen ak yenen yu doy waar sax waaw lool mo tax mané ma bëgg généraliser né goor ñi ko mais kon na wax ma partie parti mais ñi ëpp li ci ëpp nak li ci ëpp. d'accord ci goor ñi. kii nag dugg na si fi ma euh, fi ma gën a bëgg nee ndax affaire bi kii woon na. moom ñu a baax a baax. ñun xamuñu moom moom na. a xam. Ah, ah, ah feesoon na di fàttali nag fukki euh, dese si émission. émission bi tudd. amul tab. tabbuguloo dara na bëgguloo dara. déedéet léegi ba léegi bëgg nga ñu wane publiquement affaire bi bëgguloo ñu grillé ko nañu ko wane ñëpp xam ne yow yaa nekkoon def émission ñun ñu nëbb kanam gi ok d' waaye nag euh, soit euh, am nga loolu ñu nëbb ah mais nag euh, comme li wax rek. li si nekk yàlla nga koy seedal parce que moom moo ñu gën a xam. suñu moo gën a dégg suñu bu nga xool li nga jotee ak sa borom kër. ñun wax dëgg yàlla euh, xamuñu dëggantaanu dëggantaanu problème bi mais euh, ni mun a expliquer rek ak ñun ñoo xamante ne ni dund nañu ak ay soxna yoon nañu ay soxna souvent dañuy génne di véhiculer message boo xamante ne jarul véhiculer maanaam loo xamante ne ni si nekk la war a ñu génn ko ci biti si koo xamante ne nii dóoru la ndax daan na la ba génn la bitim pour nga ñëw c'était pas pour divorcer moom dafa la ko dafa ko moom xam na ni moom su ma bàyyee du amati jigéen si àdduna moo tax mu jàpp ci nii. say morom waxoon nañ ko ñu am ay jigéen yu leen dàq yu leen dàq sëy na. say morom waxoon nañu moo la gën a xam ne su ma am jigéen. léegi yow est ce li ma ah ko mën a muñal doomu aadama. say morom wax nañu loolu te terewul seen jëkkër yi dañoo ut yeneen i soxna yoo xamante ne ñoo leen gën a rafet ñoo leen dàq sëy ñoo leen gën a mën a sëy. moom du ko am. sa moroom yi nag waxoon nañu loolu non sincèrement sa morom mais est ce que yow ba da ngaa si sa def loo xamante ne def loo te yàlla rek tax boo ko fóotalee parce que nag attention léegi fóotal jëkkër léegi kéemaan la jabar bu fóotal jëkkëram mu ngi mel ni rek ñaari train bii retardé ak bii ñëw heure ñu jël bii ñëw heure di koy tàgg fóotal sa jëkkër léegi kéemaan la toggal sa jëkkër léegi kéemaan la tegal sa jëkkër ataay léegi kéemaan la kéemaan la kéemaan la kéemaan la kéemaan la ay yu bëri yoo xamante ne léegi boo ko defee dañu lay wax naan yi xewe na est-ce que yow da ngaa réer si vingt et unième bi ñu nekk nii maam bu Buso ak nga xamante ne mooy maam Anta ah, maam Mor Anta Sali Mbàkke nga xamante ne mooy booy juru Sëriñ Tuubaa ba téye woon sax xet ba ba taw bi taw ci kawam ba mu sëbët jigéen yi euh, ndeer yi xam nga ñooñu nga xamante ne ni ñoom ay sëykat la ñu woon est-ce que le vingt bi moom moo la nax nga dem ba naagu ci li nga def foog ne dangaa def lu kenn deful déedéet loolu de du yow sëy bi nga sëy da nga ko def ba pare nga yaakaar si mbay ñun sa jëkkër war la tout le de ne la ah, bravo defal ma fóotal nga ma bàccal nga ma paasal nga ma xam nga est-ce que da ngay ndamoo loolu nga xamante ne nii wareef la su diggante yow ak sa borom kër te yàlla wax ne jigéen su fekkante ne am na ku muy jaamu si kaw suuf jëkkëram lay noonu. loolu du ma ko def dinaa ko ndax damaa war lu ma war la te xam naa ne lu ma war la. parce que man man dégguma la fi nga wax dara lu extra ak na appal yaa ne kii parce que sa jéeg sa moromu jéeg ña ngay gis defatuñu loolu sincèrement jigéen ñi paaseetuñu fóotatuñu te dinaa la jigéen dafa nekk remplacé gis nga sama waa ji fi mu nekk nii ba jabaram demee léegi ça mois ak am na ku koy ku koy ku daan lalal ndaw si moom moo koy lalal ku daan fóotal ndaw si. mom moo koy kudan ku daan passel ndaw si mom moo koy paasel badan ba daan togo ceeb moy togo togg bi donc jigen ni jegi legi ban lañu am si keur bu njëkkoon bo genné si keur goor gi daf ko wara yek normalement legi machine à laver mu ngi ci biir keur gi affaire bi du togo affaire bi mu ngi ci biir keur gi ban njëriñ ngeen am lu laaj bi sincèrement legi remplacer dafa yomba ah. parce que kat bi mom moy faute machine à laver bi wala wala affaire yi wala wala wala wala ay affaire yu bëri mën nga dem jëndi sandwich ñuy jàng si mbedd mi nekk léegi yéen est ce que xalaatu leen ne lu ñu romb remplacé ngeen nekkoon nga bitim réew gis nga ba bagaas yaa ngi fa sa waay boo ko toggalee mu lekk boo ko toggalu la mu lekk donc jigéen est ce que perdre valeur am est que léegi jënd si sëy njëriñ boo ko toggalu du lekk dangay feebar bay lor nga sax mu lay football naan la jugal mais loolu est-ce que du moom mooy sa sëy yow est-ce que du yow loolu daf la war ci diggante yow ak moom su dee benn soxna nga est-ce bëggoon nga mu am ñaari soxna. bañ naa ko bëgg bañ bëgg su ko defoon tamit garaawul de ma géré ko rek. voilà léegi ñi nga xamante ne ñoo nekk bitim réew ñu ñëw foofu jafe-jafe ya nga xamante ne gis nga ni jigéen ñi ñu ngi fay dund lu yéeme loolu lan la loo ñu si mën a wax. balaa may àgg foofu am na loo wax léegi damaa bëgg ñu dellu ci. jigéen remplacé ko yomb na léegi déedéet ah nit mën dasi def si def si moom loo xamante ne nii pour nit ñëw remplacé la fa du yomb mooy li mo li tax ma wax léegi naan moom du ma mës a bàyyi naan day dem tekk ji keneen damay demande divorce ba sonn mais moom du ma fas ah. moo tax ma wax loolu sëpp kii nag ñëw na kii dafa am fi benn ngandam rëg-rëg boñaawam ah boo xamante ne ni moo dugal ko ci maaman yi bitel bi tank tidji tijji ko rek waji du du du du xalaat jigen jigéen bu Ya yow yalla tere lan moy sa mama? dem si maama dem na kan defarel ma li wala ki beug wala kii bëgg man suma beugul mo xam affaire am la ndax xas naa am ak mom ñetti do man certes man am sama ñetti do, sumay sey sama doom yoy lay sey lu ma mënti defit garaw doom yoy lay sey ñoon dañoo fa bay ak sama ngor boobu ba kon euh, mbokki internet yi nga xamante ne nii euh, yéen a ngi seetaan Sénégal TV yéen a ngi toujours seen émission amul tabu mu mel ni que mbir mi war nañ ko seetaan dañuy ndeysaan gisante ngoro ko ba muy bees soo ma owulee téléphone ma jaaxle su ma la owulee nga jaaxle ñuy rumbante di dàqante di nobante ba ñu sëy bu ñu sëyee

li la sama waa ji waxoon ne boo si xësee ba dugg rek yaa ngi dugg si benn bombe bu nga xamante ne ni bombe à retardement la mën na exploser sa kaw à tout moment mën na la indil ay jafe-jafe parce que lu ci bëri ay jafe-jafe la ñuy gis si sëy après 10 ans après 15 ans muy am ay problème léegi doomi ñoom ñoo tax ñuy sëy mbëggeel ba dafay mel ni dafay deñ mu am tamit loo xamante ne dañ koy wax góor ñi ñu ne lu ma lay gën di bëgg rek mu mel ni que yow sama mbëggeel dafay gën di wàññeeku si yow est-ce que yow da gis ne waa ji dafa am ay gel dafa am si leneen mu nekk day fo fokkat la. xamee mu ko foofu mais def na ma ñaari affaire yoo xamante ni ay jigéen ñoo tax mu ko foofu su dëgg nee mais def na ma ñaari affaire jigéen ko loo xamante ni su ko defoon ci beneen jigéen dina demee neneen yàggul dara mooy fan yi muy bëgg a ñëw dafa kër gi dafa nekk ci kaw ak ci suuf mu jël ma ak xale ne ma yéegal ci kaw te bul wàcc toute la journée desal ci kaw ak xale tëj buntu yëpp des ci suuf te jigéen moo fa doon tubaab la waaw jigéen bi moo fa doon tubaab ñu am doole waaw mu tëj jabaram si kaw ndax tëj ma si kaw tëj man day bañ ñu gis la fekkoon man kase garaawul de jël sama bagage yi nekkoon foofu ay sama ay daal nag yi nekk foofu yëpp jël ko ak bagage su xale yëpp mu yëgal ko ci kaw bàyyi kër gi si suuf. pour wane ne moom jigéen li nekk fi. moom loolu la doon duru man su fekkoon man kase la ko def loolu du ma sax toog ba di ko fàttaliku mais su ma ko fàttaliku lool daf may daf may metti ndax xale yi. ndax sëy dañ kaa war a def wala duñ ko war a def koo si waxtaanal après dix ans après quinze ans yu bon yi rek lay fàttaliku yu naxari rek lay fàttaliku yu naxari rek yu naxari rek da nga doon nekk looy jooy sa kanamu doom ñu lay gis ngay jooy. jooy naa ba taay am na ci benn bis boo xam te ne sama doom bu am 4 ans moom moo dama ko jëli ci école mu ci ñëw fekk papa mu toog noonu ci côté buntu waañ xale bi jubal dugg ci biir saal bi ma jubal sama nekk pour su may pour defaral xale bi mu nekk ma su meeku génn papa mu xam di di wax mu xam mu xool kan xale dafa dem dañoo dem ba ragal seen papa su seen papa duggee si biir kër gi rek seen fit yi day dem. day dalay leen ñii kiiwatuñ nekkatuñ ak seen bopp normal daal dangay gis ñuy mel ni ko affolé yooyu dafay obligé jël leen nekk ñoom si benn néeg di foo ak ñoom nii bu xasee ba dugg si kër yi xale yi dañuy sonn dañuy sonn xale bi jour boobu dafa jekk jékki 4 la am ne ko papa toi tu parles beaucoup ko ne ko li ngay wax lu bëri yow boo ñëwee si kër gi sama yaay day sonn 4 la am di ko wax loo baal sama yaay nga koy foo toll juuxu di ko dóor danga dangaa bëri wax xale bi wax ko ba pare di doon wàññi di waddu di jóg rek mu jug bëgg koo dóor ma këf xale bi dawa moom tëju ma mu taxaw ci ci bunt bi naan boo amee sept ans wax ma lii ma def noonu jaar fu ñaaw ma rey sa nangam taal ma ne ko yow de yaa ngi nii gisal nga sa bopp quatre ans la am wax la lii kii bu amee sept ans wala am âge bu ko ëpp kon bu boobaa dina jàkkaarloo ak yow jour boobu xale bi gontuwaatul école. li sa morom yi di dund foofu loo ñu mën a wax lu metti lu doy waar loo xamante ne sax sàkk euh, soxla nañu ndimbal. bëri na yi ñuy dund foofu am naa si ay xariti xariti xarit. dañuy dem di jaay ji seen bopp sax. jaay ñu sax seen jaay ñu seen bopp. dañuy dem di nëbbatu ji di def yi leneen loo xamante ne seen bëgg bëgg ko. déedéet déedéet. lan def lu metti dañuy sonn. sonn cest dañ leen di sonal. sonal lu bon rek lañ leen di def parce que dañ leen di dóor di leen maltraité di leen def lu metti di leen bokkante ak tubaab yeeg yooyu. loolu moom mooy loolu. loolu moom waxatuñ ko. loolu am na. waaw loolu moom waxatuñ ko. si dundal ñoo xamante ne dund nañu loolu. seen i jëkkër leen di bokkante ak tubaab yi. pour di si am xaalis. ah wóoru ma lan mooy waral loolu yow pour yow. seen i dañ leen di bokkante tubaab yi ñu góor ñi ñooy dem uti ci tubaab. waaw waaw Euh, mbokki internet yi euh, yéen a ngi toujours seen émission amul tabbu euh, merewuñu kenn nag xasuñu kenn xarabuñu kenn waaye tamit gërëmuñu kenn dañu bëgg a wax rek ne ki ñëw exposer problème si dañuy sukkandiku pour def sunu émission bitim réew dafa doy waar bitim réew dafa metti bitim réew dafa bari stress xoolal néeg bi ah ci biir fi la douche bi di nekk fi la ñuy weere fi la ñuy paase fi la ñuy fóote fi la ñuy togge fi la ñuy defle gisuloo bàjjët gisuloo yumpaañ gisuloo tànt gisuloo kenn yéen ñaar rek ak seen problème maire bi muy jóge si service ba moom lay ñëw yéen ñaar ngeen nekk si kër gi gis nga néeg bu amulee aération gis nga noonu may defe noonu boo fi taalee gaz xet gi des si biir maire bi noonu lay desee si biir kër gi kër gi dafay dem ba affaire mer rek moo fay am gis nga kër Europe bitim réew mer rek moo fay am xam nga l'énervement est voilà l'énervement est permanent donc toujours dañuy mer donc nañ jëlat congé suñu xol yi euh jigéen yi aussi ñu bàyyi leen ñu exprimer wu euh, famille aussi ñu génne ci digënté euh, euh couple yi euh jigéen dina mer supaap moy li ñu doon wax noonu ñu bàyyi ko mu exprimer wu comme li Tidiane wax sànq dañuy am droit exprimer parce que dañuy bëgg wax li nekk seen xol parce que ñom nak wax dëgg euh jigéen ji jëkkëram ko am fula la mais fula bobu dafa dem ba daf ko naxari jigéen bi jëkkëram ku bëgg njabootam la mais dafa dem ba ni muy conditionné njaboot bi di ko conditionné ba doom yi rabal ragal ko moom dafa dem ba loolu daf koo naxari léegi moom dafay bëgg xam nga fippoo def comme yeneen femmes nga xamante ne nii dañuy yuux seen jëkkër dañuy taaj seen jëkkër te jëkkëram mosu ko may loolu donc benn moment donné li mu nekk di wax actuellement ni ñu may ko ko nag il faut ñu bàyyi leen ñoom ñu exprimer waaye nañu xam ne bu ñu génnee affaire bi ba warul jot jot si nii lay demee day tas waaye lu war a yem si néeg ay la yéwén nañu fexe ba mu yem si néeg ñii sëy ba ñu màgget nañu bàyyi xale yi ñu sëy te génne si sëyu xale yi te xam ne ñoom amoon nañu ay problème si seen sëy te amul benn sëy boo xamante ne nii dañ koy saytu du am problème kon ñii may déglu ñii may seetaan ñuy toog sama wet ñoom ñëpp amul ku nekk ci sëy te mosuloo am problème ci sa sëy kon man li may digal soxna si nii mooy mu toogaat jël congé xalaataat au kon muy divorcé waa ji tamit jëlaat congé xalaataat au kon muy jël yeneen décision yi parce que waa ji kat

Euh, question bi ma ko doon laaj xam naa Ousmane jëkku na ko kii posé na ko mooy est-ce que bi mu jógee extérieur ma ngi kii ñu ngi koy waxati ma ngi seen kër wala kër papam wala kër jëkkëram mais actuellement mu koy laaj ndax jëkkëram moo ngi envoyé euh, argent de poste wala ak dépense est-ce que jëkkëram mu ngi woo téléphone ñoo ngi communiqué ensuite mu koy posé beneen question mooy puisque moo jëkkëram kese ñoo dëkkoon est ñoom ñaar bu fekkee jote nañu jëkkëram dina jóge fee ne soxla ko au ñëw rek forcer ko walla nan lay demee daal salaam. waaw kii question bi dégg naa ko mu ne ba xam moo ngi may ñoo ngi déggante. waaw yooyu waaw ndax ndax si lal bi ndax ndax bu ñëwoon xam nga lal bi moom dafa bëgg lal bi nag Iba dafa affaire lal la léegi lal bi loo si lal bi nga ne. dégg naa leen WhatsApp bi. waa Ndew xëy na hmm. euh, ah, ba mu jógee foofu ba léegi may ñëwee seen kër laa wàcc fa laa wàcc nekk ci néegu magam am màggal bu tombé comme man suñu kër gëj naa fa 4 ans gisuma sama ay parents léegi ma tàggu woon papaam ak yaayam ñu ne woon demal seeti leen nga nuyu jiwaale leen bi ma demee nag ba tey jii après delluwaatuma seen kër. mais dépp ba ma ñëwee Sénégal ba tey woowu ma lekk ma tëru ma woowul sax ay xale man moom loolu garaaw si parce que tàmm naa ko loolu moom nekkul dara ci ma ñàkk woote wala ñàkk yónnee nekkul sama problème jigéen laa euh, du ma joteeg sama jëkkër ba tax may téye sama bopp ci moom wala may toog. da ngeen bëgg affaire bi nag foofu moom bu fa yeggee ngeen jubboo. <laughs> loolu loolu moo ñu war parce que ay jigéen lañ. <laughs> loolu moo ñu war du xaar muy ñëw. du ma xaar muy ñëw damay def li ma war comme ni ko jigéen ñi defee eh, eh, eh. waaw seen mer mer loolu bokk si boo leen utee ñu ut la boo leen utulee ñu ut la nee na moom nday kii waaye man sama waa yële moo ma bëgg a jaaxal moom léegi affaire au rek lay waxtaanee <laughs> léegi euh, waaw Awa sa question. asalaamaaleykum soxna si ginnaaw bi ma la nuyoo sama question mooy dama lay laaj rek ndax premièrement bi moom bi mu la takkee takk. est-ce que moom doon na dund yow comme ni mu war a dund ak yow comme góor ni mu war a comporter ak jabaram di ko soutenir affaire yooyu bu fekkee ne loolu am na ndax am na kenn koo xamante ba nii doon na jaar seen diggante walla walla am na ku leen doon jiima séparé daal ba pare tam am na benn question bu ma lay laaj bi yaayam nangoolal beeg noonu moom nan la réagir. waaw ñoo ngi lay fay soxna si di rafetlu sa question bu baax ah, yaa ni mu nangoolal bi nga wax walla ci. manam ba amna na ko doon jéem séparé ci digënté bék yoyu man mom loolu duma ko sétlu nek ma jigen bo xam damaay sétlu ndax bo sété rek da ngay gis so xolé tamit da ngay gis bo déglo dégg lool motax yu bari duma ko bëgg di sétlu damaay nek ci lima ma war rek ma ci amé lu neex baxna ma ci amé lu naqari tamit baxna walu bi mu nag bi yaam jëlé lal bi tamit daf mané ne jëndoon sama yef la maka jëndoon sama yaay amna droit jël ko waxaatuma taman def nañ ko presque lu tolloog deux jours trois jours ma soog see débat sax ma soog koo laaj ci la ma tontoo loolu ne ma maa ko jëndoon sama maa ko moom ma daal ne kon baax na. voilà mu mel ni que ñu ngi bëgg yegg si suñu euh, terme émission émission amul tabu euh, tey nag dana doon gan ko nga xamante ne ni euh, bitim réew la nekkoon di dund ak jëkkëram dund fa lu métti si li nga xamante ne ni loolu la wax waaye nag métti métti yi mooy mënuñu wax li nga xamante ne ni moom la ko jëkkëram def si loo xamante ne ni lu convaincant la man de convaincre ma man damaa jàpp ne daal jigéen la boo xamante ne ni dafa mer et puis stress jàpp ko xam nga mu war a noppaloo ko mu war a jëlaat congé. xam nga noppal xelam noppal xolom après kiif daal di nekkaat ensuite ma jàng si moom jàpp confiance parce que nee na jëkkëram defal na ko loo xamante ne nii euh, du ko bàyyi mukk di uti keneen mu mel ni que jigéen bu naagu aussi feeñ na ci biir émission bi koo xamante ne óolu na boppam parce que nag ñun tey ab jëmi jéeg lañ invité

ñu ngi ciy jéem daal lu ñu mën. <laughs> ay jigéen lañ moo ñu war. te ah. jigéen dafa war a xajal. waaw suñu yaay daal li ñu santoon moom góorgóorlu nañ ci bu baax soo déggee cadre maanaam ma ne du ma bàyyi mooy que ni li may dund ak moom nekkul ne affaire sëriñ la wala dara dama xam ne rek def naa ci moom loo xamante ne nii. pour mu bàyyi ma dem seeti ci keneen du yomb. foofu rek laa ko teg. ndeysaan euh, mu mel ni que euh, xale bi wax na loo xamante ne nii lu am solo si sëy la euh, sa naqab jëkkër sa biirub jëkkër sa sa waxande jëkkër gis nga ñetta yi nii su fekkente ne ni mokkal nga ko naqa bi mooy maanaam paccax bi paccax bi su fekkente ne organiser nga ko bu baax comme ni nga xamante ne noonu nga ko war a defaree loolu moom sa waaye fu mu dem day dellu si biir bi mooy maanaam lekk gi lekk gi su fekkente ne ni toppatoo nga ko comme ni nga ko war a toppatoo fu xiife rek fu mu xiife rek xelam si yow lay nekk waxande bi mooy ay yëreem ngay toppatoo ay yëreem convenablement yooyu aussi su fekkente ne ni alors toppatoo nga ko aussi fu mu nekk rek xelam si yow lay nekk ak toogin bi tamit ak taajin bi tamit. xam nga ni nga koy taajeek ni nga koy kiiweek yooyu léeg-léeg nga toog jël benn fàllu sër bi tas ko def ko ni jàkkaarlook moom di ko xool di ko di ko dóor affaire yi nii di ko comme kuy damee xam nga donc boo defee loolu moom day day day déconcentré wu xam nga bii bu ñuy dugg sax moom du ko yëg bali mën nañuy def nii di dugg te moom du xam ne bal yaa ngi dugg donc yooyu ay feemi jigéen la ay salañ salañ la yoo xamante ne nii alors jigéen daf ko yëg waaye tamit ku jekk ko da baale ah parce que tamit léeg-léeg ñoom dañuy xam point faible lu góor yi ah ba pare téye leen foofu ne di leen maltraité xam nga maanaam dama yaakaar ne maltraitance boobu noonu feeñ na si mbir mi am na loo foo jàpp sa jëkkër foo xamante ne nii alors mooy jiwul demul uti ji beneen góor yow tamit nga xam ko boo ko bëggee téye rek foofu nga koy téye duñ ne nag. man li ma koy laaj mooy comme ça buy def ay affaire cuuraay takk fer def si mbir mi jaar jaar satis comme ça bëgg daal nga gis a bëgg. jërëjëf <laughs> ah. comme ça soxna si. man sama sama ibaadu bi foo waxee affaire yooyu rek waxuma joxuma la par yow léegi yow léegi fu nga jóg xanaa kii man jaaxal na ma daal waaw may ko may ko may mayal ma ko. ma ni ma ngi bàkku naan jëkkëram bu ko bàyyee dootul amal beneen jigéen nangam ak nangam yooyu noonu pour pourquoi moo jëkkëram ñu nekk jëkkëram di ko àcc ci kaw di fat ay tubaab kon na bàyyi xel foofu noonu ndegam jëkkëram doon na def loolu rek mën naa am keneen ku ko gën moom ok. te dafa wax lu am solo tubaab yi dañoo am ay monot am ay liif am ay sibari dañ lay yeew xoolal dañ yeew si lal bi di ngeen di seetaan loolu yeew la nii xoolal di lay tuur ay liif ba sa yaram bi di naaj te am na ñoo xamante ne yooyu rek la ñu bëgg donc yow attention ah, sa waay international xam na bin bin xam na string loolu moom foog nga xam ko xam na nalli xam na tàlli yooyu xamagoo ko waxal waxal waxal ak ñi waaw. Ah. akam koo xam sax loolu nga wax moom da koo xam pire. tax ki ki ko yàlla boole da koo xam te di ko defal loolu moom xam na ko bu baax te lu ko xamee ci man mii la ko xamee manoot rek tubaab a ko defar waaye. <laughs> denc nañ ci yàgg nañu suñuy xeetu silib rek amul feet waaw loolu moom dëgg yàlla ñu ci sant yàlla bu baax soo gisee tamit ma ne ay euh, du amaat beneen jabar wala su ma bàyyi du ko gaaw a amaat nekkul ci cadre boobu sax laa ko teg. maanaam li may dund ak moom te mën ko kaa muñal yombul beneen jigéen di bu ñëwee muñal ko ko yombul de. voilà foofu laa ko teg. voilà mais ko ci cadre cadre bi moom dama ko pakate teg ko na le dama ko mokkal macha allah. voilà donc euh, affaire bi war nañ ko war a mën a régler ah man toujours je pour que ñu régler ko mu régler wu parce que boo jëlaatee congé moom mu xalaataat njëriñ bi nga ko amal yow tamit nga xalaataat njëriñ bi mu la amal jàpp naa ne ñaari ñun ñu stressé. ñoo am problème ala rawatina stress bi nga xamantene ni mom mo am bitim rew donc euh, jigen ni dañuy faral di wax baat bobu li ma ko mënal beneen jigéen du ko ko manal wallahi yéen ngi nax sen bopp jigen ñi sey rek lañu bëgg jigen ñi sey dong la ñu bëgg boko wédé nga laaj soxna sa nga xamantene ni tasoon na jëkkëram deux fois wala trois fois elle souffre bu gisee ku ku ku ko téyil buum bi rek. mu téye si nii te dootu ko bàyyi abadan donc soo ko dundulee euh, mënuloo ko xam soxna si lan ngay tëjee. li nga wax noonu ci ne jigéen ñi sëy rek lañ bëgg loolu leer naa ñu la sëy rek lañ bëgg ku leen jàppale ñu sëy ku leen tee ñu sëyal waaw rawatina sama kalaas gi bëgg nañoo sëy ku ñu jàppale ñu sëy bëgg nañoo sëy parce que yéen góor ñi ngeen a dem ba xam ci ci loolu ci jigéen ñi xam ne dañoo bëgg a sëy moo tax ngeen leen di leen maltraité di leen def yenn yi ku ñu jàppale ñu sëy rawatina ak man mii jigéen buy sëy nga koy def yenn yi di ko mbittal fu ne nga jaar fa ak moom terewul boobu ba tey mi ngi toog xam nga ni koo ko bëgg naa sëy ku ma jàppale ma sëy damaa am ku ma jàpp su ma demee tey ba taxaw bëgg bëgg di demande divorce mooy que ne damaa sës dama sës sës moo tax ma ñëw ba fii. mu mel ni que mu mel ni que euh, wax naa wax boo xamante ne ni euh, wax bu daw yaram la. Euh, ñàkkut ba am na ñoo xamante ne ni euh, dañuy dajee soxna su euh, bëgg sëy dëggantaan ñu di ko maltraité mënuñu wax ne loolu amul waaye ñàkkul ba am na jigéen ñoo xamante ne dañuy dajee góor gu leen bëgg di leen toppatoo alors ñuy maltraité góor googu noonu comme ni mu amee si góor ñi noonu la amee si jigéen ñi waaye de maa ngi leen di waatal maa ngi leen di giñal ne loo bëggul ñu def ko sa rakk walla loo bëggul ñu def ko sa doom warloo ko def rakk ko jàmbur comme warloo ko def doomu jàmbur donc euh, muy ku góor ki muy ku jigéen ki war nañu xam ne gannaaw bu leen yàlla euh, boolee si farataam ak sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc war na ñu fexe ba dawalante yërmande mooy bi maanaam yërmande bi nga xamante ne moo war si diggante way dencante ñuy bàyyi xel si lu ni mel ku jigéen ki ku góor ki moom moo ko war a waddal dëkkal ko dëkkoo ko waaye nag ku jigéen ki bu fekkente ne woon na am na keneen ku mu war a jaamu si kaw suuf euh, jëkkëram lay war a doon lu mu si mënti doon rek mooy ñoom ñaar dañoo war a ànd

jeex na abadan bii moom dama dama dama see taxaw te loolu laay def incha allah bu neexee yàlla jël naa samay décision parce que bu ma mësaan wax sama yaay wala ma wax sama papa ñu may négliger bañ ma faale mais bii yoon loolu moo tax ma jóge ba Touba samay wàccu foofu lañ nekk ma jóge ba Touba bàyyi leen fa ni leen dinaa dem defal sama bopp nangam ak naam dem ci chef de quartier bi wax leen ko nangam ma am kon ñoom war nañoo xam ne man taxaw na si donc euh, décidé na pour def lu mel donc xalaat na ci xool na ci nee du ci dellu ci ginnaaw ñu ngi koy ñaan nak mu dellu ci ginaaw parce que nak jàpp naa ne euh, mer la bu fekkente ne nii yàlla tere traité ko dafa weddi sëy bi nekkul ban genre góor ngay welcome ban genre góor ngay bëgg a nekkal. bëggum bëggatuma nekk góor suur naa góor. dafa teel nag 27 ans. billaay suur naa ko.

Euh, émission bi neex na waaw neex na. moom la baax man de li ma li ma leen conseillé mooy comme duma la bu tas ndax ku nekk li nga dund yaa xam la mu sax kooku màcc rek moo ko xam. Mhm. xam ko léegi li nga dund sa biir sa yoon rek yaa xam te tamit jàmbaar nga tamit te sëykat la ndax tey yow li nga dund nii man gisuma benn jigéen si jamono jii ñu koy dund koo wax danaa la kenn du ma rey ak stress ba stress génnee ba tey benn jigéen bu ñu tuuti stress boo waxee ñooy la man góor du ma rey nit may perte. ndax góor su ma reyee man maay perte ak samay ñaari waajur léegi koo dégg loolu lay wax yow moom li ngay dund nii man gisuma ko ci àdduna bi moo tax du ma la conseillé ni la toogal sa sëy du ma la conseillé tamit ni la bàyyi ndax li ngay dund yow yaa ko xam mais tamit mooy loolu daal say ndax tey jii boo demee duggaate tamit benn côté say doom bu ñu yàggee mën nañu jël ak ji boobu ndax xale moom xam dara.

Ben pak rek xam na lañ ko waxe ben lay rek xam nga ubbul xam ko la fi di nous lay du ah, donc il faut que nga xam keureum exactement parce que ñun ñu ci nous wax mom rek mo wax donc lim wax est-ce que na amul donc dara ah. donc sukkandiku ci parce que man damay taxaw ci bi nga ni fa la keureum taxawé donc bi effectivement le son de Viviane là xaw ma ndax xam nañ ko wala xamuñu ko non stress boobu dafa révolté lu ëpp li nga xamante ne moom la amul tabu di révolté wala li nga xamante ne mooy émission na ma góor révolté nit ñi. donc no stress dafa poussé jigéen ñi ne léegi ñoom dootuñu tudd stress waaye nag ah boo xamoon li si gannaaw no stress boobu noonu. ki ko way li muy dund <laughs> wallahi <laughs> ah, mo ngi ci ñettel bi xawma ñentel bi donc boko defé rek da ngay dem di dem di dem di dem di dem donc man bu fekantene ni sa kaddu mu wax nga ko man ma tagato ak internet yi senegal TV ñu tej ñun mom bañ dalé du no stress boobu vivian génneegu ko ñun dara naqarewul lu ñew mën nañ ko encaisse lu ñew ñu tegoo ko nangu nañ lepp bu ñu jappalé won rek ñu nekk ak mom billahi ta yalla tax wa mais nak amul sens daal

mënu ko téa dafa mel rek xam nga góor mo nan pare na ci paré na ci mu paré mais sa way bu laajee nga may ko avion may ko ray ramal ko xam nga wayal ko o ñi way ñep ñu gëreum ko xam nga deltu wat ginnaw su fekkee erreur bi ci yow la nga def lool yow it su fekkente tane erreur bi ci yow la tamit nga deltu ginnaw donc mbokk internet yi nga xamantene ni yéene nekkoon di ans sen émission amul tabu tay amul tabu bi benen la won ci amul tabu yi di len wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu si beneen numéro amul tabu